kon ko amagul décodeurub canal li ñu koy ñaan moo di mu dem wuuti ko ki ko am te abonné wul tamit na daw léegi dem abonné ji ndax Coupe d'Afrique bi ñuy dund jamono jii du fenn fudul ca Canal Plus rawatina Canal Plus CAN. Ok Lilian, on reprend. Champion, champion, champion, champion, champion. Super. Cette fois-ci, on donne tout, Champion d'Afrique, champion d'Afrique. Oui, je suis prêt. Allez, cette fois, on donne tout. Il l'a fait Il l'a fait pour la première fois de son histoire L'étoile sur le maillot pour l'Afrique Avec Canal+, on donne tout pour la CAN. Tous les matchs, tous les experts, 24 heures sur 24, seulement sur la chaîne Canal+ CAN. Disponible dans toutes les formules avec le décodeur à 3000 francs, l'installation et la parabole offerte, D-Access. ñu door journal de la CAN bi dooree ko ci Amir Abdou mi tàggat équipe nationale bu Mauritanie ñoom nag ginnaaw suba di mardi maanaam talaata dañuy jàkkaarloo ak Algérie match boobee sax mooy soxal match bu mujj ci seenu pool waaye moom Amir abdu nee na du may dara waa Algérie li mu bëgg moo di tegal leen gite ngaas du ko yombal équipe type bi mu yor moom lay teg ngir xëccoo ak ñoom nee na Algérie am na équipe na teg équipe am ma teg sama équipe ndax du ma leen yombalal match boobee man mii di Amir Abdou Coupe d'Afrique bi weesu maa yoroon Îles Comores waaye bi ma ñëwee sama premier match dañ maa gañe bi may qualifié nag ci dernier match bi laa qualifié Ghana laa jàkkaarloo woon ak duma ko Coupe d'Afrique bi weesu ñaari match yi ma ca njëkk a jongante dama ko ñàkk bii ñu nekkit ñaari match yi ma njëkk a jongante dama ko ñàkk waaye maa ngi wéy di am yaakaar li ma bëgg moo di mardi bu ma jàkkaarloo ak Algérie defante ak ñoom am ndam ci seen kaw ngir wéy di am yaakaar mën a dem ci huitième de ya Amir Abdou mi tàggat Mauritanie moo yëkkati kàddu yooyu ñu jugee ci Amir Abdou ak i kàddoom dem ca fédération algérienne bu football ñoom nag seenu président bind na ab plainte jagleel ko waa CAF ndax kat dañuy ñaxtu li ko waral moo di démb bi ñuy jàkkaarloo ak Burkina Faso nee na ñoom waa Algérie dañoo am ab penalty te arbitre bi ni mu doxalee jaaduwut loolee bokk na ci li tax ñu bind ab plainte loolee la tubaab di wax réclamation loolee la ñu def muy fédération bu Algérie li ñu bëgg nag moo di gaañi ñi càmbaraat mbir yi rawatina arbitre yi ndax démb bi ñu jàkkaarloo ak Burkina Faso am nañu penalty waaye arbitre bi tiire wu ko loolee naqari na leen lool ci fàttali match boobee nag 2-2 la jeexee. waaye bi mu jeexee président fédération bi tudd Walid Sadi dafa bind ab plainte jagleel ko waa fédération bi nag ñoo amal communiqué siiwal xabaar boobee nga xam ne seenu président moo ko amal. ñu jugee ci président fédération bu Algérie ak i ñaxtoom dem ca équipe nationale. national bu ñoom nag suba dañuy jàkkaarloo ak Guinée équatoriale waaye nañu def très attention ndax Côte d'Ivoire li ñu bëgg moo di am ndam mën a qualifié waaye ñoo ngi jàkkaarloo ak équipe boo xam ne jamono ji dañoo taxaw muy Guinée équatoriale ndax ñoom bu ñu xoolee seen fukki match ak juróom yi ñu mujj a jongante dégguñu ca benn yoon muñal bu ñu la gañewut dañuy témboo ak yow maanaam dañuy def ak yow match nul kon waa Côte d'Ivoire nañu def très attention suba bu ñuy jàkkaarloo ak Guinée équatoriale jamono ji nag Côte ndam képp ko mën a jagal lu ko moy rek ay mbiram mën naa takku suuf ñu jugee ci équipe nationale bu Guinée ak seeni jaloore waaye Coupe d'Afrique bi duñu ko génn gum jamono ji nag Coupe d'Afrique baa ngi neex li ko waral moo di équipe yaa ngi dugal ndax football nañu jamono ji vingt-trois match waaye amul benn match boo xam ne zéro zéro la jeexee lu mu gàtt-gàtt match bu nekk am na benn bit kon jamono ji nag attaquant yaa ngi doxal waaye Coupe d'Afrique bi tamit mi ngi neex ñoo ngi gis football bu rafet nañu ñaan nag jaloore joojee wëy ndax loolee baax na na lool ci footballub Afrique waaye tamit nañu wéy di ñaanal équipe nationale bu Sénégal mu yenu raaya bi indiwaat ko ci réew mi ñu jugee ci jàngat boobee ñu amal ci coupe d'Afrique bi waaye kat coup d'Afrique bi ñoo ngi ci ba léegi tey jii nag ñetti match ñoo amoon ñaar ñi jeex nañu dinañu leen jox résultat bi ñaar ñi jeex moo di match bi doon dox ci diggante Maroc ak RD Congo un un la jeexee Zambie tamit doon na jàkkaarloo ak Tanzanie match boobee tamit un un la jeexee ginnaaw résultat yi am tey ji nag ñu jox leen programme suba bi suba nag ñeenti match mooy am li ko waral moo di poul yi jamono ji dañuy yeggali seeni match poul A ak poul B yépp suba la ñuy yeggali seeni match poule A bi nag ñooy njëkk a jongante bu 17h jotee ñaari match yépp ci même waxtu wi lay daw Guinée équatoriale war na jàkkaarloo ak Côte d'Ivoire mi daloo Coupe d'Afrique bi